termine avec ça xam nga tey boo xoolee euh, président Bougane dafay wax ni moom euh, conviction lay duggee ci politique maanaam politique li mu ci duggee satas dos la bien que moom dafay définir boppam comme étant quelqu'un boo xam ni moom citoyen bi lay dund dundul politique jàpp nañu ñoom du politicien entrepreneur social la mais jàpp nañ dafa am lu mën ci démarche ci ci marché réew mi moom moo tax ñu engagé wu engagement boobu na président Bougane a chaque fois ci élection bu ñu demee bu ñu ko éliminer boobu lay gën a féroce. baalu. ci lay gën a dangereux. élection yi ñu ko éliminer yëpp dafa wàcc battre campagne contre le régime. loolu li histoire démontré na ko. beneen mooy aussi ci wàllum ndaw ñi président Macky Sall dafa échoué ci politique publique yi nga xam dafa war a def envers la jeunesse boo xoolee discours à la nation bi mu def le 31 décembre 2023 dafay wax ni injecté na ci xëyum ndaw mi 450 milliards. mais 450 milliards yooyu ministère de l' emploi bi mu génnee chiffre chiffre officiel am lu mu wax 7000 la ñu def comme recrutement cela veut dire que yeneen emploi yi nga xam ñooy gravité autour yëpp ay emploi précaire la. Mhm. soit bale tali bi wala nekk ci feeraa bi wala jàpp nañu ne 450 milliards loo ko injecté mu war a jur njëriñ loo ko injecté mu war a jur njëriñ. parce que nan lañ ko mën a def nan lañ ko war a defee waaw ci suñu programme moom mooy dans chaque commune dañ de transformation industrie légère de transformation laajul benn man financière bi supposons euh, ñu dem par exemple commune bu Fass Boye ñu ne ah foofu dañu fa war a def transformation locale pour lu defar wàllu jus ak yeneen ak yeneen pour exporter parce que tey boo xoolee ku mel ni Fass Boye dafa am potentialité yoo xam daf ko regorger jëlal suñu jën bi nga xam mooy thon bi bu ñu koy jaayi par exemple étranger yi. Mm-hmm. xam nga ñaata la leen di dikkee cent vingt trois francs le kilogramme. Mm. ñoom bu ñu jëlee li jël yëpp dugal ko ci ay conteneurs yóbbu cent vingt trois fois lañ la leen dikkee le kilogramme. Hmm. alors que ñoom bu ñu demee transformé ko indiwaat ko fii quatre mille six cent le kilogramme la ñuy coûté. Hmm. ñoom ñoo ñu koy jaay quatre mille six cent francs cela veut dire que entre la matière première ak euh, le produit transformé y la mer à boire. y a à hmm. manger y a à boire foofu noonu war na fi mën a créer li nga xam mooy recherche créer fa emploi ça mm-hmm. te loolu on n'invente Malaisie def nañ ko. Singapour def nañ ko et là def nañ ko Inde ñu ngi koy def et cetera beneen bi mooy ba mais vous pensez que loolu mën na retenir jeunes fii nii Sénégal. effectivement parce que. ay affaire transformation lan la ñuy uti bu ñuy dem les lendemains meilleurs la ñuy uti liggéey lan la ñuy uti pour mën a faj bu mu gàcce yi retrouver la dignité. Mhm. domestique loolu la ñu soxla mais loolu boo leen ko defalee seen propre réew dañ fay des te am na sénégalais yoo xam ni ils perçoivent 3 millions 4 millions à l' mais boo leen doon fay fii 2 millions au Sénégal ñu resté resté au Sénégal beneen bi moom mooy aussi boo xoolee ressources minières yi nga xam moom la ñu yor. nga dem par exemple fu mel ni Tomboronkoto biir Kédougou waa ITIE dañ di génne benn rapport ni en mille 2022 expert nañ 19000 kilogrammes d'or mais mille kilogramme d'or yooyu Sénégal xam nga ñaata la ci am deux 203 milliards. te ku ne xam na ni xo or moom mooy garantir xaalis or monétaire xam nga ko. Mm-hmm. te ñun dañu prévoir ni dañu war a am suñu propre réserve monétaire maanaam réserve yi nga xam moom la ñu déposé France dañ ko récupérer dix neuf mille kilogrammes d'or. da ngeen d'accord seen politique. dix neuf mille kilogrammes d'or ñun liñ ci ko ci am mooy plus du euh, du budget du Sénégal war nañ ci mën a am lu mu mille milliards. léegi ñi nga xam ne ñun dañu foog ñu changer franc CFA. nga or. Ah, dañu war a changer franc CFA gis nga tey boo changé te changé woo contrat yi nga xam moo ñu lié ak l'Occident ça restera mhm. du pareil au